asalaamaaleykum mbokk yu tedd yi fi teew fii si Njaasaan may tàmbalee sama kàddu ci di yëkkati nuyoo ak ziara boo xam ne sama xol laa ko tibbee jëmale ko ci xalif bi di Cheikh Bécaye Moussa ak jëmale ko ci njabootu alkunti yu yëpp fi am naa mbégte bu baax a baax sant naa it suñu borom subhaanahu mu la mayee yéene bi ma ci Njaasaan xëy na ci tàmbali ma may ñu ñu yéene boobu ci bërëb bii di résidence Cheikh Bou Mouhamed Kounta Euh, ma jàpp rek ni Sénégal réewu diine la diine dafa solo trop muy diine l'islam bi gën a yaatu muy diine chrétien boo xayma téeméeru sénégalais yi ne daanaka quatre vingt yi ay way ngëm lañu kon état bi war na mën a jàppale diine yi te bañ di dugg wala di dugal loxoom ci doxalinu diine bi lu jafe la nag waaye noonu lañ ko war a jàppee maanaam doo gis mukk ci sama kilifteef ñuy dugg ci biir kër yi di xool ni muy doxee ku war a togg ku war a def lii wala ku war a def la loolu du cëru état waaye cër bi mooy jàppale diine ji jàppale famille yi jàppale taalibe yi ngir dëkkuwaay yi ak barabu dalukaay yi ndegam ay doomu aadama yu takku ñoo fay daje at mu ne wala jamono diir ñu fexe ba gox yi am ay màndarga yoo xam ne dana yëkkati lislaam d'abord te dana ko taaral lii mooy programme bi ma def jëmale ko ci këru diine yi bàyyi na ci katolik yi ndax fi mu nekk Popenguine maa ngi tàmbali liggéey ngir ñoom itam ñu am dalwaay bu am solo bu am màndarga ndax la fay daje bari na kon dafa nekk cër boo xam ne dañ ko jagleel diine ji li nag Njaasaan yelloo na ko def naa lu mel nii tey jii pare na ci Laayeen co ca Ndakaaru def naa lu mel nii ca Kaolack nga seen ca Medina Baye def naa lu mel nii fii seen wet ci Tivaouane Touba def naa fa yeneen i liggéey xëy du bâtiment yu mel nii waaye am na ay cër yu fa def yu am solo ba si seen jumaa ji nekk Ndakaaru ci wàllu guwaar yi pour accompagner effort yi nga xam ne ñoom def nañ ko en tant que communauté mouride def naa ko Medina Gounass ngir yombalal leen Dakar bi ndaje ba ñuy am def nañ ko feneen ak feneen ñu ngi koy fas yéene continuer di def ndax loolu yëpp bu sottee tiital la ci lislaam tiital la ci diine mais aussi tiital la ci senegal parce que fii ba ay ati at ku ñëw dama fekk liggéey bi teew ndax yaa ngi jot ni yitte sëriñ bi ci entretien bi wax nga dëgg wax nga nag jumaa ji ñuy tàmbali ci seeni doole bopp ma ci gërëm bu baax pap abdou kunta fall eh, wax ngeen ma kër gi nga xam ne ci presque année mille neuf cent quarante cinq lañ ko tàmbali mu pare mille neuf cent cinquante cinq tey jii mu toll si ñu war yeesalaat jàppalewaat ko balaa muy am jafe-jafe waaw loolu nag ay liggéey la yoo xam ne dañ ci war a jàpp parce que sunu yéene la loolu sama programme bopp la kon damay ñaan yàlla mu kàttanal ma ba ma mën a mottali yéene yëpp ndax bu ma koy def kenn sant ko kenn ñaanu ko te jàpp ne lislaam bi ak diine ji am na nu ko war a taxawee ndax même tubaab yi bu fi nekkee nekkoon ay colonisateur jumaa yi fi jiitu ñoom ñoo ko tabax te damay ndar jumaa ba ñu fa njëkk a tabax 1825 dañ ko fondation El Hadj Omar Tall Cheikh Omarul moo ubbi jumaa ja plusieurs années après ndegam nag tubaab te jógee tugal ñoo mënoon def loolu ci seen jamono masta maag ñun tey waroon war nañ mën taxaw donc këru diine yi ay taxawu bi nag dafay laaj tam ñu si déggante ñu xam ne it du obligation gouvernement nit bu lay defal lu baax boo mënee nga ne jërëjëf boo mënul tam nga maandu ci waaye du force du par force wala ñun defal ngeen lii diw ñun amuñu lii dinañ dem ci rajo yi dinañ def lii yooyu yooyu man personnellement du loo xam ne dina ma yëngal trop ndax toujours dama xool rek yàlla soxla ak bi nga xam ne man moom laa war a def ci lim la ma def ko ma def dafa am solo toujours ñu xam ne état bi mu ngi góorgóorlu li ñuy def ci diine Sénégal amul benn gouvernement ci àdduna bi bu koy def si amul

te loolu effort lu yu bare bare bare donc loolu tam dañ koy def ak xol mu sedd parce que dañuy jàpp ne bokk na ci lii tiitaru Sénégal ndax boo gisee Sénégal yu bari xewee gu fi diine ji moo dëgër te xam-xam lal ko dax ko gis tey fii kàddu yi ngeen di yëkkati nga xam ni ñu ñu tàggat ñooy wax bu doon ci système eh, école wala université occidentale ay professeur de chaire ngeen di nekk parce que xam-xam bi xalaat bi kàllaama bi leer na leeraay boo xam ne ku jàngul mënul waxee noonu te ñun li ñuy jàng-jàng si système boobu saa yi ñu toog ak yéen di dinañ am ay jàngat Ahmed Bachir léeg-léeg ma ne sama wolof ci moom laa ko jànge boobu élève la

wala ay enseignement yoo xam ne vraiment lu am am solo la loolu nag dañ ko war a préserver te pour ñu préserver ko foog ñu am ay dëkkuwaay ay bâtiment am ngeen fi bibliothèque donc lépp loo leen bind tey jii si Njaasaan ak li ko wër ak diine ji mais di ngeen ko mën conserver des centaines d'années ku ñëw mën si jàng xam bu dee néegu ñax la bu benn ngelaw jógee safara yóbbu lépp daal di réer donc moo tax Nous avons des bâtiments pour la protection du patrimoine immatériel Nous avons nous nous, bâtiment peut-être avec le gouvernement premier ministre Nous xool dëkk yi nga xam nañ investissement yu des dotations spéciales pour commune du conseil départemental équipe yi ngeen mën a jël mën na nekk ci njaboot yi mais ñu tàggat leen parce que mbir mu mel nii foog nga former ñu koy nettoyer ñu koy balaa ñu koy yàq ah foog nga former ñu yor groupe bi parce que gouvernement mën na fi toog toujours foog nga former courant bu coupé wala et cetera foog nga am lu mu bon bon tollu si juróomi nit ba ci fukki nit yoo xam ne seen liggéey mooy di saytu bërëb bi di ko toppatoo ni mu war a doxee. mu former leen ba pare xool ak ñoom maanaam luñ ñu leen di fay pour que saa yoo ñëwee bërëb bi mën a nekk bërëb bu mucc ayib pale bu ba di nekk tey kër gu màgget la 1902 lañ ko tabax ah, boo ñëwee tey da ngay fekk mu normal waaw ah, dara du ci day mel ni bañ ko doog a tabax loolu nag entretien moo koy def ak maintenance waaw mën nga am bedd moo xam ne daf ñetti at ku fa ñëw gis miir di xar peinture yi jaar fële courant bi du baax alors yooyu yëpp si entretien la donc dinañ ci liggéey pour jàppale commune ak conseil départementaux yi et puis xool aussi formation professionnelle xale yi ngeen di tàggat yu góor yu jigéen ñu jàngal leen le métier de hôtellerie ah mu ñu toppatoo résidence yi incha allah daañu si taxaw bu baax a baax. lu ci si itam dégg naa ko mu jëm ci jumaa ji ak ci kër gële incha allah luñ ci man rek daañ si taxaw pour euh, mottali yéene donc euh, waaye nag mënu moom sama kàddu te duñu santaat ak di ñaan sunu borom yokk leeru ki nga xam ne mooy xalif bi fi jógee di Cheikh moom bu Mouhamed Kounta yal na yàlla yokk taxawu wala yokk leeram te it teg loxo si njaboot gi mu fi bàyyi di feddali rek sunu wëllëre ak xalif bi moom it ko yàlla jàppale yokk wér-gu-yaram ci moom ci ngeen ma wax itam incha allah dinañ ci def ay pexe bu ci yàlla ànd kon kàddu yi loolu la woon rek di sant bu baax di gërëm allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam